am na ku xam xikma ku waxan ne ko juróom benn yi maa ngi la koy dénk boo ko sàmmee da nga amee xel mu rafet mat ba ci jëkk mooy ku la gën a xam dara daal loolee mu la gën a xam bul jekki di ca xëccoon teeg moom ñaareel ba mooy lépp loo xam ne mënoo caa jot du ko jéem yóotu ñetteel ba mooy bul wax ci saw ñu lu wuteeg la nga fas ci sa xol ñentel ba moy say wax ñu mu wuteeg say jëf juróomeel moy mbir mu dëgmal na ci moy lo ne yomb na la da nga taxaw ci jot ca te bu bayyi mu raw la bu raw rek da nga reccu lo doon sagane ba mu raw la waye nak mu ba nopi wan la gannaaw bul jekki di ko dabu ndax da ngay sonal rek bi ko juróom benneel mooy da moytu yàkkamti yàkkamti nee ñu yàqate rek ba arab sax di ko tudde ndey rëccu maanaam yàkkamti mooy jur rëccu yonent bi nee na juróom-ñaar ñi bu bis pencee ba kër jafe su boroom dana leen keral ci keram googe nga ci njëkk mooy ilimaan ju maandu maanaam ku jiite nit ñi ba noppi aw ñoom ci fa yàlla bëgg ku fa aw ñoom ci maandu rek ñaareel bi mooy kuy sarax yi def lu baax te di ko làq ba nga xamee ne kenn du ko yëg nga xam ne loxoom càmmoñam sax du xam la loxoom ndeyjoor ba joxe lu fa bëgg wax rek mu làq ko bu baax a baax ñetteel bi mooy góor goo xam ne jigéen ju rafet da ko woo ci boppam bëgg mooy moom yàlla ne man day ragal naa yàlla xalaatuma mooy muy jàkkaarloo man ko ñeenteel mooy waajoo xam ne fu mu toll mi ngi bàyyi xel jàkk-jàkk julli mbooloo ma xam ne saa yu jotee rek ma ngi koy waajal daal ci it dem bu ci jógee it ma ngay xalaat nu mu cay delloo rek waaye moom xolam mi ngi taq moom jàkk ji du ko fàtte benn yoon bokk na ci ñi yàlla yi keral ci bis boobu ak waxambaane woo xam ne li mu doon doon ndaw dafa daal di farlu rek ci jaamu yàlla jaarul ci topp yëfi ndaw baalu koy duru xanaa sax rek ci jaamu yàlla ak waa joo xam ne dafa wóot tudd yàlla fàttaliku ko ragal yàlla tax koo jooy bi ci mujj nag mooy ñaar ñoo xam ne dañoo soppante te yàlla dong tax ñu sax ca noonu nag ba yàlla dogal ñu tàggali ko ci yées nag ci nit ñi mooy waajoo xam ne daa ñaaw ñaaw njort ba wóoluwul kenn kenn waaye moom ci boppam dafa ñaaw ñaaw jëf ba nga xamee ne kenn wóoluwu ko li gën a jafe nag ci mbir yi mooy am sa mbokk moo xam ne dangeen ngeen di déggoo ci wet gu ne mu ne addis ba nee na ñett ñi moom jëw leen du jëw bu araam maanaam wax seen mbir kese yam ca bañ caa yokk leneen araamut mooy ko jiite nit ñi ba noppi dëng awut ak ñoom fa yàlla bëgg nga wax rekk na mu dënge ak ñàkkam ñàkk aw yoon képp yem ca jëw la waaye araamut kuy naan sàngara te du ko làq-làqal nga wax rek ak naanam sàngara yem ca moo beneen bàkkaar ñuy fësal ñooyamoo moo tax mu ñetteele ko ak képp kuy fësal ak kàccooram lu bon la muy def daal daa ñàkk kerse ba bu ko làq-làqal kooku wax loolee muy def ci lu bon rek yem ca bañ caa bàgg leneen moom it jëw waaye du jëw bu araam lii day wax bu am njariñ la nee na juróom ñett la yoo xam ne day yóbbu nit gàcce ba ci jëkk mooy lépp ndabul teranga loo xam ne woowu la ca nga jekki-jekki dem loolee day gàcce mën na caa mujj ñaaral ba mooy yow doo borom kër gi ba noppi bëgg a yilif borom kër ga ab surga doon nga ba noppi bëgg a borom kër ga loolu de mën andi gàcce ñettel ba ku la wóor ne sab non la nga bëgg mu defal la lu baax sab non kay bo muccee ci mom rek wara a sant waaye nag boo bëgg mu defal la lu baax gatché mën na mujj ñentel bi ñaar ñi waxtaan lu ñu ci nga di ci dugg lolou andi gatché juróomeel bi mooy xeeb buur buur mbaa ndawu buur koo ci xeeb rek loola mën naa jur gàcce juróom-benneel mooy toog foo xam ne sadara ji àggu fa foo dem rek fexeel ba toog foo xam daa yem ak sadara ja mbaa boog li ci gën sax nga toog foo xam ne sadara jaa ko ëpp waaye nag saa yoo toogee fu kawe sa daraja moom su wutul rek gàcce toppe ja ca su wutul rek ñu toroxal la bu la neexee bu la naqaree juróom ñaareel mooy di wax ak koo xam ne bëggut dégg say wax faliwu la loolu day indi gàcce bi ci mujj nag mooy di xaritoog koo xam ne hari tol omar yàlla na ko yalla dolli ngeerum nee won ñet yi day day tax way gën la sopp man am sax ku la ton yett yi tax bu sopp la ba ci jëkk moy saa ko gisee fexé ba jëkk ko nu ñaaral ba moy yu nga yaatal ko mu tok ñettel bu moy nga diko woyé tour mo gëna bëgg ku ko ko yang ñet yaa leen di xamé ci yett ku jëk ci moy jambar bala nga xam jambar lu mata feñal jambar xew waye li fek lu mata feñal jambar xewut do mën xam kan moy jambar ak kan moy yafus ñaaral bu moy ku am kóolute bala nga koo xam rek jëflanteeg moom li fekk jëflantewul ak moom rek am lu ñu seq ci loo ko war a jox mbaa lu mu la war a jox loo mën a xam ba xam am na kóoluteem déet ñetteel bi nag mooy sa mbokk dëgg-dëgg bala nga koo xam musiba dal la li fekk amagoo aw naqar aku tiis doo xam sa mbokk dëgg-dëgg bu la nattu bu réere dalee ci ngay xam